لسانا ولا تقلط قوذا هزلين عني قياب ميمة وبهتان آه، وحاسب اللفظ أيوة في دنيا آه، آه. حاسبة قبل القيامة وتربح دون حصرا من منصرنا كفر لسانا لا تطلق وضع زليل عن اغتياب النميمة وبهتان بنفسه في دنيا محاسبة قبل القيامة تربح دون حسران ne ñu ngi nuyu ñëpp ne ci ndigalal Serigne Babacar Mansour ak rakkam Cheikh Al Hadj Malick Sy Maodo ñu ngi nuyu ñëpp di ziyaara itam nag ñëpp di wax nag marhaban ñëpp surtout nag seen mbokk mi bokk ci kër gi nag ñu bokk ak moom lépp muy gouverneur bii ak si tey fa tabaarakallahu fekk na nag mbokkam yooyu jotaayu tey bii ku ne xam na ko xaw a yàgg ci ñoom moo tax it ñu ñëw yabal sëñ Babacar Moulaye Abdoul Aziz ñaan njéggal mbooloo mi tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla may ñu àggaleeg jàmm te ñu jiituñu te nag ñoom ak seeni mag ak ñun ñii topp ci seeni gannaaw ñun ñépp yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq kenn ku nekkit jàppal yàlla daal yow ni yow daal yaa toog fii nga toog waaye toogaayu Serigne Babacar ak Maodo nga rek nga toog ne ndax benn bindkat nee na kullu muslimin rasul moom daal nee jullit yépp kenn ku ci ne mën naa représenter ab yonent kon daal kenn ku ci nekk ci nun boo wuutoo Maodo wuutu magam waaye ne daal defe na ni kon dara du manqué fa tabaarakallaahu yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq ne foofu daal moom sëñ Babacar Moulay Abdoul Aziz ne foofu daal lañ koy yemloo yàlla nañu yàlla boole defal tawfiq كان كوني نبوك جانغ فاتحة تكي صلاة الفاتحة ينكو جامو يلا دفكو هدية نك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يلا نقمنا نمطل جموم يلا يكتي جلجي جلجي نجلي سيدنا محمد تمجيتو نجموم digal ñu ko bu ñu matalul it yàlla nañu yàlla yëkkatil ca moom yàlla na mu toll matal ko joxal ñu ko sallallahu alayhi wa sallam hadiyaam bismillah ñu jàng ñaan gi toll yàlla nañu yàlla may ñu àggaleeg jàmm ci barke Seyyidina Muhammad te lépp luñ ci def yàlla na ko yàlla nangu. yàlla bu ñu yàlla alif. ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. yàlla na ko yàlla nangu bu ko nangoo yàlla na ko ful. joxal ñu ko Muhammad. joxal ñu ko Muhammad. yàlla na ko yàlla def ne xam naa tey nag dañuy dem rek noppalu ji ba suba ndax kilifa yi nekkuñu fi Sidi Ahmed moo waroon a ñëw tey waaye xam naa moom ngànt la waaye waxtaan yi inchaa allahu danañ ko wéyal ci ndigalu kilifa yi yàlla nañu yàlla may ñu jëriñoo ko nag yàlla nañu yàlla may ñu jëriñoo ko ne te it nag jëriñoo gi mooy jéem ko di def mooy jéem ko di def waaye amin rek déedéet jéem ko di def jéem ko di def ne am na aaya boo xam ne moom mii daf koy faral di jàng toujours rabbana innaka man tudxili nnaara faqad axzaytahu wa ma lilzalimina min ansar ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا واغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخصنا يوم القيامة إنك لا تخلف فاستجاب لهم ربهم أني عمله waaw kon ñu bàyyi di ko nañ ci jëf nañ ko jëfe waaye ne kon daal li ñuy waxtaane fii ci jàkka ji nañ leen àndandoo bokk nag di ko jëfe waaye nañ leen ko jëfe nañ leen àndandoo bokk di ko jëfe ne ndax dañoo toll ci jamono boo xam ni jëf daal moo war a ëpp wax ji fii ñu toll daal ci ji jamono jëf daal moo war a ëpp wax ji te nag wax ji fii ñu toll nag bare na lool waaye nag li ñuy wax yëpp nañ leen ko ba te def ko jëf soppiwaat nag suñuy doxalin lépp ñu jël ko teg ko ci yoon ndax ni ko yonent sallallahu alayhi wa sallam waxe woon rek badaa hariban wa sa yaud hariba moom daal ci tumuranke la tàmbale ci tumuranke it lay dellu rek te fii ñu toll nag doomi jullit yi ñoo tumuranke lislaam kon daal ñun ñëpp ñu bokk àndandoo li ñuy waxtaan ci jàkk ñi ñu jëfe ko nañu leen ko jëfe yàlla kat jëf lay fay de waaye yàlla bot ba mu ne wala qad karam naa bani aadama ba mu àgg dañ ca teg ولكل درجات مما عملوا ولكل درجات مما عملوا كن كن لا جف رك لا لا يلا يفاي تكد ويوتي كل ذي فضل فضله رك تيتم نك وان ليس الانسان الا ما سعى واي كون نين اندو بوك غور غورلو نكو سيرن بابكر تامبلي وون نكو سيرن بابكر منصور تامبلي وون رك nee way way waay len leen téye lamiñ yi te wàññi ko làmmiñ yi nañ leen ko te lu nit jem wala mu bëgg ko te mënu ko def bu mu ko wax na bàyyi ba man ko wa la te def ko رقيب لما تقولون تيا ايها الذين raqibun lima taquluuna te yaa ayuha alladina loolu ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون تيت وسنكتب ما قالوا لو شي واي واخ رك يالا نكوي بند في نو تول نك لو شي واي واخ رك يالا نكوي بند دي موتاخ با يالا واخ كروك ني اي واني لين لامبيني موم سيغ بابا موم سيغ بابكر باني تامبالي لولو لا اوبي نان لين واني لامبيني توتي امنا كو واخ ني ني امنا صاح كو واخ ني بو واخ دي خالص بو واخ دي دال خالص dëgg la noppi di oor xaw ma nag ban moo leen ci gënal hmm, xaalis ak or bu leen ci gënal waaw ne Muaaz ibnu Jabalin ne dafay wax ni yonent bi waxal yëg daf ni hal nu waaxidu bi ma naqul ndax yàlla danañu jàppee li ñuy wax waaw ñun ñii ndax yàlla danañu jàppe ñun lii ñuy wax mu ne lii ëpp ñuy dugg safara ngóobitu làmmiñ moo leen mu ne ñi ëpp ñuy dugg safara ngóobitu làmmiñ moo leen ciy dugal na bilqist maanu leen ci seen wax ci seen njëf lum ci yow rek dëggalal Cheikh Hadji Abdoulaye Sy Malick nee na wa kunu qawwaamina bilqist maanu leen ci seen wax ci seen wax lum ci yow rek dëggalal wala tashhadu mukkit lu ngeen xam ni wóoru leen oh. ci mbir mu mu doon teet leen ko ndax loolu jaaduwul ida gistumu shay'an bu leen gaawtu ixwati na ngeen bàyyi bam leer nañ ngeen di ko door jotal Cheikh Hadj Abdoulaye Sy Malick ne wa kuunu qawaamiina bil qist maanu leen ci seen wax ci seen jëf lum ci yow rek dëggalal xaaji abdoulaye si maalik ne gistumu shay'an bu gaaw ti xwati na ngeen bàyyi ba mu leer ñi ngeen di ko door jotal waay waay kii rek li mu wax ne waaw suñ Babacar ne yooyu yëpp ñoo ngi ci alxaaji Mansour itam wax na. ne papa Mansour it wax na. nee na ku fal lisaana wala tutliqu daa hadarin an ixtiyaabi namimatin wa buhtaani. waaw ku fal lisaana wa la tutliqu daa hadarin an ixtiyaabi namimatin wa buhtaani. أيوة في الدنيا حاسبة قبل القيامة وتربح دون حصرا ممن صرنا كفر لسانا آه. لقيام آه. ميمة البهتان حسب النفس آه. في دنيا محاسبة قبل القيامة آه. تربح دون حسران ko dee seet. ne daal lii xale yi wax léegi rek boo ko dee seet. ci ci ci fani kan ne. ne fii ne ci fani kan lañu ne nii ci fani kan la ñu ne waaw ci fani kan lañu ne nii. ci fani yonent bi la ñu ne. Seydina Muhammad. waaye kat Seydina Muhammad. yàlla daf ko fóot ba mu set. yàlla daf koo fóot ba mu set. moo tax laa yantiqu anil hawa. hawa. in huwa illa waxun yuuxa waaye nañ leen wàññi wax ji tuuti nag surtout nag surtout tuumaal ku deful dara bari na xatiatan aw isman summa yarmi bihi bari'an faqad ihtamala buhtaanan waaye wa isman mubina nañu nañu wàññi làmmiñ ji waaye nañ leen wàññi làmmiñ ji tuuti nag wasalaamu aleykum fatiha salaat alfatiha nangu leen ñaan wax leen amin ñu ngi ñaan xam nga ñu ngi ñaan waaye boo naanee ndox ci sharia sa koor dog na waaye tariqa bi boo ci jëwee sa koor dog na koor gi bu dee ci sharia boo naanee sa koor dog na waaye bu dee ci tariqa bi boo jëwee sa dog na bu dee ci xaqiqa boo dendalee yàlla ak kenn sa dog na fatiha salaatu fatiha nangu leen ñaan wax leen amin kenn mësu koo dégg